asalaamaaleykum wa rahmatullah dañuy nuyu bokki taalibe yi di siyaar baax di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Mamadou Bachir nga xam ne mooy xalifa général des mourides di ñaan suñu mu yàggal ko te ko di nuyu mboolem bokki taalibe yëpp di nuyu borom ëtt bi nu nekk di sëriñ Ahmadul Muxtaar ak njabootu Cheikh Mamadou Moustapha ak yëpp di nuyu mboolem di nuyu mboolem euh, auditeurs ak auditrices yi nga xam ne ñooy seetaan. sunu site Mourid info ñi siyaar baax di nuyu mboolem militant ak militante yi nga xam ñoo àndoon di jàppale le président Macky Sall euh, ba mu am ndam premier tour amul ben problème ñi ngi leen di nuyu baax di leen siyaare wayé di féliciter euh, son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di ko ñaanal yalla ndam li yalla nako jik euh lépp lu mu defoon ci sept ans yalla nay asakay li nga xamné mom la nar a def ci 5 ans yi ñu tollu mbokk mi di wax ak yéen nag mooy Ibra Kane doon responsable APR Touba Darou Khoudoss quartier général Touba Darou Khoudoss ci euh, comité électoral bu Darou Khoudoss di siyaar ñëpp sëñ Mbàkke ba ci kanam. waa jërëjëf euh, bilan campagne tey buñ ko dee wax dina doon lu metti ndax kenn ku ne xam na ne campagne bi dañ ko di def malgré volontariat waaye euh, ñi may dégg di ma seetaan kenn ku ci nekk su ma waxee da nga mën a teg sa baaram ci li ma wax wax dëgg yàlla euh, muy doon lu metti ndax it nag euh, campagne ay wax ca la mais nag jëfit ca la ndax da nga am ay adversaire adversaires yi lu la gañee jaral nga perte jaral na leen lu ko raw ba tax na lépp loo fa def boo fa defee benn ñoom ñu defa fukk renk ngir nga wàcc te loolu yow mi nga xam ne yow yaa nekkal sa leader ci terrain bi yaay xam loolu parce que euh, xaj na ak góob fa mais fa ñëw bu ñu seetloo li ñu am ci Touba wala kii ñu bari dañ ko xeeb mais lal fa yóbbu boo ko doon xalaat dëgg-dëgg da nga xam ne vraiment Pastef la ak pas-pas waaye du moyen yoo xam ne wala boog moyen ñañ ko jox nekkuñ ci terrain bi lool moom sañ naa ko waat. waaw ah, mais ñu ni ci terrain bi moom man personnellement depuis 2008 ba ma dalee ànd ak Macky Sall di di ko campagnal ci Touba booba dekkal ngor taxawagut ba fi may waxee yow musuma dégg moyens yu ñëw wala kenn ci ay responsable woo ma jox ma ca loola te loola ba léegi ba deux 2019 bii taxaw ci lool loolu lañ taxaw sëñ sëñ sëñ Mbacké jërëjëf sëñ ñoo ñooñu dañoo baax rek mais def sa waru def sa warugar jërut ñu cee sant xaj na nag liñ naan àll jër te na mat ñu ne ah kay ndax àll ngi ne yàmbal nga te amutu mat xaj na buñ ma remercier ci charge de sélection bi nga xam ne boole woon maak cent trente personnes muy cent trente bureau de vote yi nga xam ne mooy centre euh, Daaru Xuddoos un ak deux yàlla dogal ma doon mandataire ba. Euh, six cent cinquante mille ya ma leen di fay jarut lu ma yàqal sans der alali àdduna milliard jarut lu ma ko sama jëmm damaa gën a lu ma mën a am damaa gën a lu ma mën a am keroog bi ñu ma joxee xaalis bi cent trente euh, six cent cinquante mille yi di xaalis bi bi ma paree bureau bu nekk dam bi dama ne teel sa sa sa sa PV ñu dem quartier général ma fay la keroog fanaanawu ma benn dërëm ñetti junni laaj ci fanaanaw muy ñetti ñoo xam dañoo yóbbu woon seen i PV tey jii may wax ak yow ni kenn du ne interpellé ni Ibra Kane sama PV baa ngi ni fayow ma loolu nag xaj na ñoom bu ñu ma remercier wala ñu mel ndax am na fi nag ñoo xam ne xaj nañ ñu seen i militant loolu maa ngi koy dégg mais fii ci Darou Khoudoss nga xam ne mooy centre bi gën a mag ci ci Touba yor 130 bureau de vote man ma doon mandataire bi kenn kenn ku ma la mën a wax ne de bi ma paree Ibra Kane defut ak man nii wala la amut ñëpp fay naa leen xaj na nag loolu moo sedd seen xol ba tax ñu may remercier mais damay jàpp ne man damaa def la ma war ndax sang sama der benn ci lu ma war la ñaaral ba ca toppit mooy alal ji bi ñu koy indi sama jëmu taxutoon mbooloo mee taxoon li nga xam ne mooy indi de dellu siwaat ci loolu mooy liy indi problème mooy loo bokk ba noppi nga jàpp ne danga koo moom loolu day feeñ ci Touba. dañ lay jox ne la lii ya gaay nga yaakaar yak mom te lolu en général day indi jeu bu bari ci ci ci parti bi daal señ sëñ Mbàkke waaw euh, Cheikh Abdou wonama ma laaj ma xalaat ma wax ko mu wax manema dama bëgg remercier ñima andalon sant leen leen ma ko lolu rafet la parce que nak aw nit andé te lii dund gi yëmu tey liggéey beet yëmu tey war nga woo ñi nga àndaloon nga sant leen gërëm leen mu ne ma nag damaa bëgg nga ñëw ndax dafa am point bu am importance boo xam ne yow laa ko cay dénk campagne bépp ànduma ak Cheikh dafa nekk ci koñam man ne sama koñ waaye nag euh, daa am lu nu boole loo xam ne dafa maa gën a lu mu mën doon mooy doomi Serigne Cheikh Gaynde Fatma la nag man may taalibe Serigne Cheikh Gaynde Fatma nee naa leen doomi deret ngeen may doomi pas-pas man nanguma kenn ëppale ma ci sëñ Cheikh daa am loo xam ne dama koy teg nee nag muy politique daa am loo xam ne bu dikkee dama koy téye muy politique. kero bi ma wooye wooyee ma ci en tant que doomi Serigne Cheikh gi def lu dara bëgg ma ko ci jàppale ko ca dama ko ne incha allah dinaa ñëw bi ma ñëwee gis nga lam ma ca jox programme bépp def na mi sey loxo kon. la mu def rafetlu naa ko ndax it nag ànd ak ay nit di leen liggéeyloo di leen ñàkku ci ñu amoon lu leen naqari waaye bis na keroog seenub xol sedd na ca ndaxit it askor dafa yëg boppam yëg boppam ku toll ne soo ko téye mu téye la soo ko téyewul mu am nu mu def ci yow. waaye dégg nga baat ba ma ko wax man kenn ku yàlla sax ko may àndal koo xam ne li ma gëm duma la ko wax amul nit ñi de mën nga leen a bëgg téye leen waaye ne li gën mooy boo leen téye nga leen bàyyi xel politiciens yi ni ñu bëgg a doxee nit ñi duñ ko nangu. nit ñi duñ doon ay dàll bu naaj bu tàngee nga sol bu ker gi seddee nga summi nit ñi nangootuñ ko nit ñi dëgg leen di yëg avant jote day jiitu joote jote day jiitu joote kon il faut ñu dellu siwaat xam ne politique liggéey la jàpp nañ ne bu ñu jëlee trou mujj wi juin ji boo jëfee jëfi juin mën naa yàqu waaye da ngay jàpp ne politique pour defar sa dëkk la defar sa askan la man waxoon naa ko Macky président Macky Sall de en 2008. gàdd sàll ngi toog conseil économique et social Cheikh Mbacke Sakho conseil spécial de président mi ngi toog tey bi ma waxee moom ba noppi doon ko ma ko doon nga directeur ba doon président assemblée musuma xam sa bureau li tax nag mun naa ma ne ko ñaara ngi ne yu dul sama jikkoo du ma lambar lambar ci bureau du ko defal kenn ndax koo dem ci bureau am yoon boo fa demee première mu jox la cinquante mille bu ëllëgee boo fa dikkee li muy jàpp rek mooy cinquante mille yàlla fi andiwaat loolu du ma ko defal kenn yàlla sakk ma ko ñaareel baate mooy nag taxaw ci terrain bi su nekk ku fi jaar ma daal tàccu ndax ñoom ñii di responsable kenn ku sa doom taxaw ci télé bi di tàcc amut kenn ku sa doom di taxaw di sànni ay xeer ak yooyu ñu lay sànni xeer amut ñoom ñëpp seen doom yaa ngi France di jàngi mën naa ànd yow bu farta jotee ma ñëw ànd yow ci farta ji bu farta ji jeexee damay def na ku la kenn abalu ma ci ay bët nag ci ñoom kon li ma gëm man mooy bu politique jotee ma ñëw def la ma war bu paree ma delluwaat bama ma yag na may dundu ba dëgg ni deureumup état musta dox ci li dundu kon du yak sama ngor du yak sama diine du yak sama dignité du yàqit nak sama ak sama mbokki talibé Touba gi politiciens yëpp ngi fi kenn ko ci manne dem bam na la ibrakan Kane na nga amut du Sello du Lat sek sada du kenn ci politiciens yi. Mor lo ngi ni di coordinateur euh daru khodous wala Cheikh abdoulo mi nga xam ne président bi ñom ñëpp Baye Ibra lañ doon wax quartier général yow xam nga lu mu fa jouer xam nga lu mu jouer ci comité électoral bu daru khodous loola nag wan leen ne lii dafiy jaar di jàll ndax wax naa leen ne leen toujours dee leen bàyyi xel ne dimanche day ñëw waaye altine day ñëw ku ci xoolutoon ne day ñëw rek bisu tey ñaaw nga ci kon euh, foofu laa ci toll sëñ Mbàkke jërëjëf euh, sëñ bi ma yaakaar naa ne kàddu googu euh, du tey laa ko mas a wax yaakaar naa bu fekkee ne journaliste yi ci bëri di ma dégg élément baa ngeeg ñoom daa benn benn bu jeunes yi APR woote woon ma teew ca Cheikh Abdou teew ca ak kilifa yu bari ma ne leen yéen jeunes yi wàcc ngeen gàcc ngalaama yéen fexe ngeen ba jeune daaru mi na mag bu daaru ko dos bu gedee yépp dajee nekk nii tey xaadim si la nga jiite leen mun naa mën a ko góorgóorlu leen taala si la mu ngi bokk quartier général mu ngi bokk comité électoral bu Daaru Xudoos moo yoroon communication bi man ne ko Talla mun naa mën ko seen programme bi da baax na ay xam nga man waxuma ak yéen xam nga ñu may waxal seen jëwriñ yi sëñ Cheikh Abdou mii mi fi toog ak Mor Lo mii fi toog ak yéen jëwriñ yi fi toog laa bëgg a yóbbante gis nga lii nañ delloo si sunu xel te xam ne Cheikh Abdou yorut wërsëgu moorloo moorloo yorut wërsëgu taal si la kenn yoru wërsëgu kenn man ngaa ne ci parti bi ba dee doo ci jariñoo dama ne ci gattal man bi may nekk ci APR booba ñii fi falu Touba kudut Moustapha Sello ak Lat Seck Sadaga falu nekkoo fi te ñaata conseil conseil économique la fi am ñaata un conseil la fi am ñaata député la fi am ñaata chargé de mission la fi am ñaata conseil spécial de président la fi am pourtant keroog ba may wax Macky Sall ñi ñëpp ñii ngi woon PDS ñii ngi woon PS ñii woon AFP te boobu ñëpp kenn ku ci bëgg Macky Sall amut mais taxut taxut ma ciy xuloog Cheikh Abdou taxut ma ciy xuloog parce que kenn ci yóotu yóotu sama wërsëg am na ci yoo xam ne yàkkamte la gis nga sàcc daa yàkkamte rek waaye gis nga lëm jël ci kër waaje su toogoon it yàlla dana ko indil waaye yàkkamte tax mu di ko jëli jëli gëm koy yàkkamti di ko jël nag weeru xaj na ci te bu weeroo yàqule gis nga responsable yii dañu xamul la ñu war a def rek waaye buñ ko xamoon duñ wax parce que wax taxul ñu am ñàkk wax teewul ñu am yàllaay joxe la yàlla wax ne man nga ca loxol Macky Sall war a jëm ci Ibra Kane mbindaafun mun tëtee mu am waaye la yàlla wax ne waru koo jox Cheikh Abdou mbindaafun mun tax mu am nan dellu si xel yi te xam ne nii ay mag yuy waxante moom yàq seenub der la rek wax ju ñaaw na dëkk fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo man gëw ma ne Moustapha Cissé daa war a attaque attaqué euh, Cheikh Abdou wala gisuma ne Modou Mbacké daa war a attaqué kenn wur ci attaqué kenn ñoom ñëpp ay nawle leen di ay bokk-bokk dëkk Touba kon nañu delloo si xel te ñooy référence yi gone yi ci seen ginnaaw parce que dañuy jàpp ne ñii Modou Mbacké def gone yi dañ ko war dañuy jàpp ne loolu ko war def ñu am ndam xoolal wax tewuta am ndam ñàkk a wax tewuta am ndam nañ delloo si xel yi tey ku ku nit ñi xeeb sa kilifa ga ma gàjam ak euh, xeeb la kon nañ dellu si xel yi man rafetlu ma loolu nañu ñëwaat ci terrain bi politique jeex na président nee na dafa bëgg a dajale mboolem parti opposition yi kuy dajale opposition nag sa waa kër boppay jëkk nga jëkk nga jëkk def ndax euh, dañ wax ne kuñ ne jaajëf ñu ne ndax say bokk ko wax diw baax na ñu ne ndax bokk yaa ko wax kon bu président amee xel ak xalaat ne day dajale mboolem opposition bi xamal leen campagne jeex na politique jeex na li des moo ñu bokk ndey bokk bàyyi liggéey réew mi yaakaar naa balay wax loolu nag lijjanti waa affaire bañ doon benn ba pare. ndax it euh, loolu lu lu jot la lu jot la ndax damay wax ne yor kër jóge fa kër ga tas moom na nga yoroon kër ga baaxut kon maa ngi ñaan Macky Sall président Macky Sall na woo mboolem jëwriñ yi waaye bu mu yem ci jëwriñ yi ndax fii ci Touba moom lu ko dal euh, ci Touba xeeb mm, ay nitam naw ay nit ñoo ko teg da nga xeeb ku xeebut naw ku nawut te loolu firnde ci Touba Senghor mosu fee ñàkk élection. Abdou Diouf mos fee élection Ablaye Wade mos fee élection Macky Sall élection première euh, tour deux mille deux mille douze li mu fi am ci ay responsable yi ko fi taxawal bariwut nañ xool taux élection législative bi fi Sénégal Gallas Kaltoum nañ xol tobam amone mais nag ñooñu fa nekkoon dañ lëcc lëcc dañoo dem bax parce que ñoñe biñ koy def dañ ko doon def malgré que ni ñun Macky Sall lañ duñ affaire duñ dara. nit ñi nawloo ñu doyloo ñu bëgg ñu nuy ànd ak ñoom gisuñu nuy xeex gisuñu nuy xuloo nit ñi nit ñi xanaa xam ne nituk histoire rek lañ ragal nituk histoire rek la nit ñi ragal kon fanu jaaroon li olof Njaay naan li nga jàppoon ba am lii bu ko bàyyee ti jig na la waaye gis nga bis boo bàyyee la nga jàppoon leneen loo gisut la nga bàyyi wane ko waral man eh, gëwuma gisuma lenn lu ma xalaat ne war naa tax ñoom ñii ñu ñàkk a mën a ànd nag liggéey te génnee kàddu yu ñaaw yi ak yooyu seen digg ndax nag ñoom ñiit kenn ku ci nekk dama la yóbbante na nag léegi pere de famille nga da doom tegu saaga bàyyi jàmbur ñu saaga sa bàyyi kon maa ngi leen di dénk ñoom ñëpp yàlla dogal ñëpp samay xarit lañ Moodu Mbacke Baari Doli fii ma toog nii su ma ko woon léegi nii mu daan ñëw ndax mus musunoo ànd ci maag moom ci lenn loo xam ne si lu dul lu yàlla gërëm la lu yonent bi gërëm la ndax yàgg na nag yàgg na bi ma sëñ Mbacke Soxna baaw baawaleeg sëñ sëñ Baara Dolli sëñ Moodu mii la àndal ndax mooy taawu kër ga moo ak sëñ Cheikh ak Cheikh Abdou ñoom ñëpp samay gaañ lañ man opposé wu ma doomu adama du ma ko def du ma politicien boo xam ne damay opposé wu ba xam ko sama diggante yow fii ma toll nii di wax yow sañ naa ne àdduna mën naa yëkkat sama loxo ne kenn koo xam ne amal naa yow xaar ma yàlla amut du ma ko def sëñ Mbacke lu ma ko jar ci àdduna amut kon ñoom ñëpp maa ngi leen di woowaat ñu bokk benn daje waxtaanaat. xam ne politique a demee noonu dere yi tàngoon na ñu kii waaye ñu ñëpp benn la ñoo bokkoon lu bëgg am nañ ko tey muy président Macky Sall toogaat premier tour dégg vive monsieur le président. maa ngi lay wax lu leer gis nga dama ne la Touba jàmbaar lañ sëñ bi Touba jàmbaar lañ parce que nag nañ bàyyi xel nañ dëkk bu toll campagne fi euh, monsieur le ministre déggoo fi DG déggoo fi lenn ambassadeur parce que ñooñuy duñ ci bi un conseil territorial un conseil économique social député peuple bee mais bu fekkoon ne tey Touba dañ ne Darou Khoudoss am na ministre euh, Touba Mosquée am na ministre Darou Minam am na ministre dakaar ñaata ministre fa nekk Dakar ñaata directeur fa nekk kon ñi fi nekk di taqale di dóor a ko jógu ko dóor a ko daanoo président na bàyyi xel Touba wax naa la nela wax naa la tàmbale ko Senghor Senghor amoon na fi ministre i bëggee yàlla na ko yàlla yërëm te yéex na nekk na ministre bu ne lu ne nekk na ko fi kon tey Touba am na ñu ko mat. am nañu ko man nit ku nekk nga jox ko la nga man téwut nga doon waayam téewut muy doon sa waay gisuma nag ne ay cadre amu fa loolu du pal gis nga koo yëg mu yëg la parce que eh, dama lay wax ne la lii xam ne moo nuyoon ca eh, local yu jëkk ya parce que avant euh, après présidentielle local la fi jaar législative ñëw référendum ñëw législative dellusiwaat ba présidentielle yii taux bi di yéeg a ko wàcc di yéeg ko wàcc di yéeg ko wàcc 2019 bi jàmbaar lañ 30 pour cent yii amuñu koon ci législative yi amuñu koon ci référendum bi amuñu koon ca local yu jëkk ya président nag mën naa lijjantiwaat ba local yeeg législative yi nekk ci loxoom mais loolu du lu ñuy wax lu ñuy jëf lay doon. am na fi personne ressource yoo xam ne ku leen impliqué ci terrain bi ñu xamal na leen nit ñi mënees na leen nit ndëk sëñ Mourou Moussa dafa wax ne àdduna bépp mën nga leen sol ci mel ne mbedd waaye mbeddum teraanga doon ñu ne ko teraanga yi mooy lan mu ne teraanga yi nit ak morom ja mooy ak yëg gis nga petit jeune marabout yii dañ cee bokk nañ leen ci boole gis nga seex fii dañ cee bokk nañ leen ci boole waaye man d'accordu ma sëñ Mbacké Dieng nga amul màggal ñu dégg ne président yebal na fi délégation ma amul màggal ëpp la mbooloo fuuf xañ naa nga am ay doomi dikk ay do la ñuy wax ku mën am ndey ku ma mën ndey nga am doomi ndey ca présidence ñu yebal fi indi la deux tonnes ceeb ak dix million man ma ëpp la mbooloo fuuf ëpp la daraja ëpp la màggal kenn ñëw fa boo wootee du ma ñëw nit ñi ku leen yëg ñu yëg la ku leen yëgu duñ la yëg kon il faut ñu wàcceet ci terrain bi xam ne xew ci terrain bi te niñ koy xamee ci Touba lañ koy xamee ci fépp waaye comme Touba laa nekk Touba laa sañ a wax jàngoroy Touba mooy dañoo ak siwut ci askan wa nan àgg ci askan wi sëriñ su ndaw si dañ cee bokk nañ leen ci boole yàquñu de seen gëm-gëm la ñuy def ay nit lañ am fu la ci seen bopp ku leen yëgul ñu bàyyi la fi dem seeti leneen donte fan jëm duñ fa defe dara waaye ñu yàqale yow te it euh, sëñ jiw a baax. taxul mu baax taxul waaye dana dalal xel xam nga yàlla na ko gudd fan bari wax la rek waaye gis nga yàlla na nga dee ñaaw làmmiñ la rek yàlla na nga gudd fan taxul nga gudd fan yàlla na nga dee taxul nga dee waaye day wér na man sëñ Mbacké Dieng mii ma yéen ñaanal ma gudd fan bëgg na ma waaye Mor Fall Mbaye mii ma ñaanal ma dee ma bëgg ma loolu lay tekki mooy nit ñi dañu soxla ci seen bopp léegi dañu egg foo xam dañoo gëm seen bopp bëgg seen bopp il faut ñu yëg kon président Touba ngi nii ñàkk Touba na wàccaat ci terrain bi euh, maa ngi félicité bu baax di remercier Boun Abdallah Dionne dafa ma waxoon ci fin campagne bi yaakaar naa six ou sept jours avant campagne mu ñuy waxtaan mu ne ma bu leen Macky Sall bu leen mere Macky Sall mere leen ma man maag responsable yi Macky Sall nommé ma ne ko ndax leen nga wax loolu mu ne ma euh, Ibra ma ne ko Mbacke mu ne ma euh, mais président mënut a ñëw Touba woo Ibra Kane woo diw woo diw woo diw. mënta dem Louga woo diw woo diw woo diw mais dëkk bu nekk am na ñu fa bàyyi ñoo xam ne ñoom ñoo koy séeral ña fa nekk te am lu leen naqari. ma ne ko loolu daw nga wax du dëgg la waaye est-ce que li nga wax mm, monsieur le premier ministre ndax li nga wax nii ni nga ko dégge gars yi déggee nañ ko loolu mun a ma ne ko bu ñu ko déggee woon doo dem Louga ñuy ŋàññi président Moustapha Diop nga fa dem ci dëkk bu ne ma tuddal ko ko. mu ne ma nag mm, mm, mu ne ma bu yàlla dogalee ñu gañ li may jëkk a def mboolem xaw ma fu may nekkaat. waye ñu xam la ne ku président tek ci barab yow yaa war a jàppale ñañ fa tegut ci barab bañ gis seen bopp ma ne ko nag loolu yi nag mu ne ma ne ko Touba dañ fa tegut kenn ko mën a dem di wax. département Mbacké ko fay tudd benn leader laa fa dégg bu yor dara muy Galoba mais ndax Galoba mën naa satisfaire Mbacké bay dem Touba directeur gi ñu ko jox mënut satisfaire Mbacké bay dem Touba kon keneen kuñ fa nommé un conseil bi la mu am xëju type dépassam conseil économique social li mu am xajut ci dépasse am député yi li ñu am xajut seen dépasse kon mënuñoo gérer kenn kii mën a gérer mooy koo xam ne wóor na ko ne caisse noire am lu mu ca bëgg man ko caa def wala kàddoom dana mën a egg lu mu néew néew semaine bi mën na cee gis président benn yoon ko mën a dimbale ay élément yu mer waaye ñii moom yokk naqa dong la ñuy def waaye mënuñu jàppale kenn ma gëm ne nag élection législative yii euh, locale yii ak législative yi ñu jëm président mën na cee lijjanti ba amaat tuuba loolu nag ab dox bu metti lay doon dox bu yàgg lay doon man daal gëw ma ne Macky Sall war naa toog fii ba wàcc te du doon dégg wiiw Touba loolu daal moom maa ngi koy wax moom. loolu nag du kenn koy def lu may moo jógaat nag xam la mu war a xam def li mu war a def ba mën a am loolu suñ Mbàkke ah, di sant yàlla bu baax. di leen sant yéen waa Mouride Info waaye di sant mboolem éléments yi nga xam ne dañu nekkoon ci liggéey bi muy presse bi yëpp ndax it wax dëgg yàlla euh, campagne bi jeex na dégguma benn journaliste bu ñu ne teg na élément bu mu wër teg wala wax na lu mu wër te wax wala bind na lu mu wër bind te fu ñu egg ci liggéey bi vraiment yéen fay ndax campagne ba mu jeex fu ñu toll ñoo yéen ay ànd jafe-jafe yu ñu yu nekk noog yéen a koy ànd amul guddi na amul bëccëg dañuy xëy bañ a añ dañuy xëy dañuy gont bañ a reer waaye lépp ngeen xam ne ci seen liggéey ngeen nekk waaye li tax ñu naa leen jërëjëf mooy rafetal gi ngeen ko rafetal gis naa la diira campagne yëpp yaa ngi ànd ak Cheikh Abdou ndax ku la xam-xam Cheikh Abdou ku xam Cheikh Abdou xam la waaye melakaan la am na noo xam ne boo na meloon vraiment Cheikh Abdou ñàkkul ñu mën a àndal kon melokaan wi nga mel sëñ Mbacke xaj na loola vraiment bokk na ci lu motivé Cheikh Abdou fii ci quartier général lu ñu fa am dañ la daan woo nga ñëw Daaru Khoudoss filmel ñu ko tegal na ko loolu lépp nag mooy melokaan dañuy wax ne daal ki ne ci ab tool mooy dagg gooñ ga ku nekkul ci tool du du dagg gooñ mbir mi nag boo ci bëggee defar ne ci yaara ngi nii yu koy tax a def mooy doylu ak yar bi xam nañ ne eh, am ngay teggin yaru nga te doylu nga loo am doylu ndax mosuma dégg benn nga ŋàññi sa morom journaliste bi sën nga gis ko bind ci morom ja loolu du sa jafe-jafe loolu du sa jëfit nag kon ñi ngi lay ñaanal yàlla lii di jit bi nga xam ne mooy Murid Info ñi ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla na ba dem télé boo xam ne dañ mooy télé Murid Info te Serigne borom mii joxe néewu la du la ko jox sa kenn nit sa ñun la doo ko am ndax yàlla mi joxe moom ñaan ko lay déglu loo ko ñaan mu may la ko kon ñi ngi la koy ñaan ñi ngi ñaan yàlla di la ko ñaanal balaa dem 2024 élection yi jëm ngay doon ab télé caméra yi bari waaye ñi nga xam ne ñooy personnel bi lay liggéey li bari ñu ngi sant bu baax kàddu yi nga xam ne moom lañ yëkkateet euh, ci bëgg-bëggu Serigne Mbacké Dieng ñi nga xam ne mooy directeur Mourides Info woowoon ñu sàkk woon ko ci ñun képp ku ci dégg lu la naqar ñu ngi koy jéggalu taxawuñ fi pour xas kenn ndax du suñ jikko taxawuñ fi di ŋàññi kenn ndax du suñ jikko xeebuñu kenn nit du suñ jikko président xeebaluñ la li nga jëf ci Touba ndax xam nañ li nga jëf benn kàddu bu mooy tëj bëggoon ñu nit ñi xam ko fàttewoon naa ko euh, damaa bëgg na ñu xam ne Macky Sall talibé sëñ Bamba tey laa koy leeral boo ko waxoon ci campagne da naan da ngay euh, président dafa bëgg a doon murit dem Taïf fekk fu sëñ Mbacke Soxna Lo bi mu demee ci sëñ Mbacke Soxna loo wax ko li mu bëgg sëñ bi yendoo ko ganale ko ba ngoon jot mu woo Baara Mbenn Seck yàlla dogal na Baara Mbenn ngi dund mu ngi yàlla ko suñu borom yàggal te wéral ko ko kaay yóbbul ma Macky Sall Touba te boo demee na nga ko jaaral sëñ Moudou Mamoun Niang mu yóbbul ma ko ci sëñ Saliou Baye Baara ñëw ci sëñ Moudou Mamoun Niang wax ko ko ba pare sëñ Moudou Mamoun ànd ak sëñ Baara Mbenn ak Macky Sall yóbbu ko ci sëñ sëñ Saliou ba ñu demee ci kër ga yàlla dogal na son yi bu Cissé moo leen teeru ànd ak ñoom ba ci sëñ bi wax sëñ Mourou Mamoun wax ko sëñ bi yónni mu yóbbu leen ñu dem ca kees faw sëni ga bu faw sëni bi ñu demee sëñ Saliou ñëw sëñ bi wax ko lim sëñ Mourou Mamoun wax ko lim bëgg mu reene ko sëriñ de daa xir baax rek ndax moom li ñuy wax ci moom mooy dëgg mooy daa taboo tabe bay tabee dara jaam waaye li mu bëggoon na li mu bëgg ci moom de mënal na ko manal mënaloon na ko boppam waaye nag incha allah de danañ ko danañ ko ci jàppale ni mu ko bëggee dana ko ne amee mooy euh, nguur gi mu dana ko am te du soññ te du sonn ci amin wa dana fi nekk ba saa su ko neexee sony bu see ngi Dakar sëñ Modou Mamoun ña ngi fi euh, Baara Mbenn Seck ngi fi Cheikh Mbacke Sakho ma ko fekke woon a ngi fi kon man ba ma déggee loolu yow wóor na la meroon naa ba naroon na génn waaye damaa xam ne bu ma génn kenn ku ma àndal du am ndam. te man damaa ñëwut yàlla di ànd ak ku dul am ndam loolu moom ma bàyyiwaat ci affaire xam ne doomi Serigne Touba ko ñaanal te doomi Serigne Touba du la ñaanal mukk ñaan nga day day sar saralal lay def Senghor dafay toog ba jóge fi Abdou Diouf Ablaye Wade mii kon kenn ku ci nekk nañ xam ne bu buñ ne Macky Sall Touba falu ko déedéet Touba moo fal Macky Sall Serigne Bamba ko fal te nit mënut te Macky Sall toog liggéey Serigne Bamba bi mu ko sant mu def ko kon na ñëpp xam ne carte Touba bu ko falu tit baatinu Touba moo fal Macky Sall wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa